ne moom de lu mënul ñàkk rek. dafa mel ni Cheikh Ahmed Tidiane si Maktoum laa jàpp wax ba pare. dafa mel ni Cheikh Ahmed moo wax ba pare. moo wax ba pare. daanaka suñu jàngoon Fatiha. daanaka suñu jàngoon Fatiha. daal di ñaan dem. daal ñaan dem. ndax mu baax. ndax mu baax. mën sax mu baax. sax mu baax. ah xanaa nag ñu ñaanal ñi fi ñëw yëpp. nee xanaa nag ñu ñaanal ñi fi ñëw ñëpp. fi indi jàngoro yàlla na ko yàlla faj. nee ku fi indi jàngoro yàlla na ko yàlla faj. ku fi indi soxla aajo yàlla na la ko yàlla fajal aajo bi. nee ku fi ah, aj de dem aj màkka de. nee aj màkka de. wala dem màkk am na nuñ koy waxee. wala koy sëriñ bi wax léegi. ak liñ fi wax sànq. ne li fi sëriñ bi wax léegi ak fi wax sànq. dafa mel nii mooy benn wax bi la rek. ne dafa mel ni mooy benn wax bi rek. képp ku aji màkk rek. képp ku aji màkk rek. yàlla moo la woo. yàlla moo la woo. mooy rek. tableau magnétique ba fa ne moo lay xëcc nga ñëw. mooy tableau magnétique ba fa nekk moo lay xëcc nga ñëw. waaye nag euh, nit ñi nag dañ ko xamewul noonu. waaye nag nit ñi dañ ko xamewul noonu. xanaa sama nijaay ji ca Saalum. xanaa sama nijaay ji ca Saalum. dafa am bés mu wooma. nee dafa am bés mu wooma. ma dama bëgg nga gunge ma kër Mor Jama. nee dama bëgg nga gunge ma kër Mor Jama. ah Mor Jama ne dañ ma wax ne dafa feebar feebar bu métti. nee ah dañ ma wax ni Mor Jama dafa feebar feebar bu métti. ah te Mor Jama. te Mor Jama. dafa nekkoon kilifa gu bew. moom mooy lekk banaana moom rek. mooy lekk banaana moom rek. moom mooy lekk orange moom rek. moom mooy lekk orange moom rek. moom mooy sol yére bu rafet. moom mooy sol yére bu rafet. moo nag mu am ñeenti jarbaatam. nee mu am ñeenti jarbaatam. bu yàlla woo ñu dem Makka. bu yàlla woo ñu dem Makka. xol bi mënu ko digérer. xol bi mënu ko digérer. mu ut fukki sëriñ ak ñaar. dugal leen xalwa dugal leen xalwa ne pour yàlla annulé aj bi ne pour yàlla annulé aj ndaxte ndaxte yéene wu ko ñeenti jarbaatam ndaxte yéene wu waaw bi ñu demee nag ndekete gàngar na fi si jamono boobu ne bi ñu demee ndeke gàngar na fi jamono dafa amee AVC xol xol bi ñu ñëwee ba set ko ñu ngi gis xobi niwaa kilin yooyu le nee wala ñu koy oowee niima. ñu koy woowee niima. mu ngi ko takk ci bopp bi. mu ko takk ci bopp sol laa fa. sol laa fa. mu ne Jama lu xew. mu ne aj bi laa bëgg ñu annulé ko. mu ne aj bi laa ñu annulé ko. mu ne ko yàlla leen woo. mu ne ko yàlla leen mu ne ko pour mu annulé ko. ñuy jàngale foofu nag. ñuy jàngale koo gis mu aji màkk. koo gis mu aji màkk. yàlla moo yàlla moo ko bañ bañ. yàlla moo ko woo. yàlla moo ko woo. na mu mujjee sama ndijaayu Saalum. na mu mujjee sama ndijaayu Saalum. xam nga mbokk sa mbokku Saalum yi dañu neex. mu ne ko ndijaay. mu ne ko ndijaay. mu ne jom. mu ne jom. nga neeti ko deewal. nga neeti ko mu ne jom. mu ne jom. te nga ne mu ne jom. jeex na. jeex na kon aj daal. kon nangu ñun ñëpp ku fa yàlla. ñun fa dem rek. dem yàlla moo la woo. yàlla pexe du fa yóbbu nit. pexe alal ju du fa yóbbu nit. wax na sànq ne ndéem man nga ko. wax na képp ku fi ñëw nag. yàlla na nga bokk yàlla boole. yàlla si xaaj yi yàlla di oo. ci leeru Seydina Muhammad. mu wax. la mu wax. fusion bi am ci bayti baytil maamu. gi. boo xoolee ci kaw kaaba gi. picc yi koy wër sax duñ ko tiim. picc ko tiim. du ko tiim. ndax diggante baytil maamur. ak kaaba gi. dafa am fusion. lu ko tiim daanu. lu ko tiim daanu euh, nanu. jàngaat bi kontaan nanu. sëriñ bi kontaan ngi jël sunu ziyaara. ñu ngi loxo. soo demee. soo nga tegal nu ko si loxo kilifa yi. nga tegal ñu ko nu sunu ziyaara. joxal muy sunu bàjjen soxna Aminta si xalifa. muy suñu taraanga yi mu indi yëpp. teraanga yim na fii si la ñu reeret fa tabaarakallaahu dem tabaarakallaahu may ño ma lay yóbbante tam ma lay xadara ba yëpp xadara ba yëpp yóbbante yëpp yegsi na taxawaay yëpp yegsi sunu soxna kontaan na sunu soxna sunu yi kontaan nañ sunu bokk kontaan nañ dëkkandoo kontaan nañ dëkkandoo kontaan ne ci yoon waaye ñaan sa barke